bu président Mame Boye Diao tey waa DGE dañuy woo fii pour discuter ci innovation yi innovation yi lan la mooy élément discriminant bi bi nga xamante ne léegi numéro d'expiration carte d'identité bi la won nañ ñu tamit ne fiche yi comme ni ñu ko joxee fiche bu nekk dafa am numéro pour un candidat mais tey ci suba ñu ngi do jóge DGE presse bi ñu ngi wax 126 vingt 127 candidats mais on est à plus de 160 candidats à la candidature ñoo xam ne déposé nañ maintenant nag ñun ñi fi nekkoon en tant que mandataire liñ gën a dénoncé mooy doublon yi ni ñu koy defee muy doublon externe muy doublon externe ak cas de rejet yi des fois dañuy rejeter pour motif de doublon rejeter la pour autre motif motif de doublon yi mooy surtout externe yi parce que interne yi ça ne pose pas problème parce que yow yaa causé yow yaa jël nit ñaari yoon mu nekk sa biir mais doublon externe yi moo posé problème problème bi mu posé mooy suñ demee conseil constitutionnel ñu nekk 160 ñu def tirage yow mi nekk premier amoo possibilité am doublon externe parce que yaa njëkk a déposé ce la mais ki topp si yow ba ki nekk vingt 99e bi moom day hérité doublon externe yow yi nga am yëpp donc à la moom pour mu am. zéro virgule six pour cent mbala zéro pour cent day poser problème loolu nag dañ ko dénoncer c'est vrai que parrainage bi baax na filtre la mais dañoo waroon fexe ba doublon bu amee ñaari candidats yi nga xamante ne dañoo am doublon externe ñu mettre leen même pied ñoom ñëpp ñu dem wuti mais ni ñu koy defee nii je crois que dinañ ko ñu bëri ñoo xam ne duñu dem beneen bi ñu dénoncé mooy si début parrainage bi bi ñuy retirer feuille dañ ñu waroon wax comme parrainage optionnel la ku nekk ban type de parrainage nga choisir. ki choisir parrainage citoyen ak ki choisir parrainage parlementaire bala parrainage exécutif locaux yi ñu xam ko nga xam nit yi dinañ am possibilité mais on a vu des partis ak des coalitions yoo xamante ne am nañ ay député am nañ ay lu mot 120 maires mais ñuy opté pour parrainage ñu ne ñoom dañuy def parrainage citoyen pour cogner yi bu demee ba ci fin bi dugal seen i député mbala dugal seen i maire je crois que le jeu démocratique dañ ko faussé dès le début ñuy dénoncer loolu di wax na bés bu ñu dajeetee pour waxtaan ci parrainage bi nañ fexe ba parrainage optionnel bi soit bi nekk dès le début c'est-à-dire booy commencer parrainage bi. 24 ak candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne ñu ñëwoon tey nag ci hôtel bi ñuy wax Ngor Diarama pour waxtaane code électoral bi ak euh, procédure yi nga xamante ni moom la ñuy mettre en place pour parrainer mu nekkoon daje bu am solo boo xamante ni yu bare yu lëndëmoon leer na te gis naa ni lu rafet la ak ñi ngi rafetlu si jataay bi ni ko direction général des élections organisées euh, liñ ci gis nag mooy am na coppite yoo xamante ni dina yombal mais am na yuy jafeel bi yombal rek mooy euh, candidat bu nekk am nga numéro sa numéro moom ngay jël moom moo lay topp ba keroog ngay sax contesté day dem ba contentieux euh, bu ñu paree euh, région yi la ñuy compter pour xam ñaata kan ñaata panay nga am pour mën a bokk ci jongante bi parce que bu ngeen di xool lii moom la xale yi di tudd a jéggi siraat ñëpp ngi yëngatu di yooxu mais fii ak pare ne woo ba validé yow bokk goo kon ci la ñuy xool kan moo war a bokk ak ku warul a bokk te loolu war na parce tey ji suba bi ma déggee ñu ni cent soixante candidats moo amagum parce que am na ñeneen ñuy ñëw ci laa ni ah kon kat parrainage bi ña doon wax ni baaxul war naa baax parce que filtre il faut mu am mais li ma ci yéem mooy comme région yi la wàllu commune mënoon nañ ko ci génne xëy na nag réforme dina am ci biir code bi ba bu ñuy defati élection présidentielle comme région yi la ñuy compter ñu bàyyi région kese parce que boo dëkkee euh, Grand Yoff commune la nga bëgg a jël ku nekk parcelle dajeeg moom Grand Yoff da ngay mujj jël beneen fiche tudde ko parcelle parce que yaa ngi def circonscription communale Grand Yoff et pourtant au final on compte que la région région de Dakar. donc du erreur. daf daf da doon yombal. parce que après da ngay dem di seggi di dugal di génn alors que mënoon nañ defar Dakar nga xamante ni fii ba bari ñi koo inscrit Dakar la bokk. soo paree nga dépose am naa 2000 yu Dakar 2000 yu Thiès boo demee Thiès Thiès tu vois woon la ngaay yooyu yëpp Thiès lañ bokk euh, boo demee ba foofu da ngay mujj di def commune de Tivaouane commune de Thiès commune de de Mbour alors que c'est la région de Thiès loolu mooy li nga xamante ne du yombal collecteur yi du yombal aussi ñi nga xamante ne ñooy saisi parce que dafa am clé boo xamante ne mooy topp euh, le format physique fichier fi fiche yi kayit yi ñuy doon dafa am clé buy ànd ak moom boo xamante ne c'est électronique saisi boobu dafa metti te lii mënoon nañu ko yombalal mais li ci tegu rek mooy euh, ñu xam ne aussi doublon yi il faut ñu ko parce que doublon yi mooy ki njëkk a déposé bu fekkee dafa am ñetti Mouhamadou Mouniru Sy da koy perte parce que loolu lañ tudd dublon interne mais bu Mouniru Sy parrainé x parrainé y x bu njëkkee déposé moom pareem day jàll y lañ naan ah yow kat kila pare ne pare woon na ki jiitu yow yaay dem wuti ku ko remplacer loolu c'est pas égalitaire parce que kay njëkk kay njëkk a kay njëkk déposé kii la tirage au sort kon ki njëkk ki njëkk a tiré moo bu chance ñëpp sa sa sa casse la légalité démocratique donc loolu war na mën a bokk ci réforme yi ñu jëm suba di ñaan yàlla nag mu may ñu ñu egg ceeg jàmm euh, ki gën ci Sénégal yàlla fal ko incha allah